wax waaw Cheikh Mourou Mountakha ci woote mi mujj yi dégg nga mu ne Touba de li gën a noppale ci ku fi bëgg a dëkk neen li ci gën a noppale mooy dëddu àddina <laughs> nga xam ne kon mag ñi eh, day mel ni loolu rek lañu lañu la ñu sàmmoon ba moo waral seen seen seen melokaan yooyu eh, bu ñu mësaan jub barab bi lu yàgg summi seen mbaxana summi seen dàll worma jooju nag suñu borom moo ko njëkk a digle te ku ko defit yow rek lay yow rek yow yow rek yow rek lay jariñ ñu koy sant bu baax sëñ Ahmadu ci bunt yi am solo yooyu xam naa ni waxtu wee ñuy dab sax ndekkoon danañ gën a xuus ci bunt yooyu ni ma leen ko waxee woon nag ci tàmbali xam ngeen ne Serigne Moussa Diop mi ngi fi ànd ak sëñ Amadou Diallo ak euh, Serigne euh, Thierno Diouf ñu di leen ziyaare bu baax ñoom nag ñu jëm ci wàññi mel na sëñ Moussa Cheikh Mountakha ni ko sëñ Youssou waxee bi mu ko joxee ndigal li moom ci boppam moo tàmbali ne def naa ci nangam ci ay nag joxe naa ci nangam ci ceeb bëgg tàmbali li mii yu bari ci la ko di mbàkke ñun de dañuy sàkku rek di yalwaan nga sarax ñu ñu barke loolu la ci def mu ne ko jox naa ci ndigal waaye kon moom pas-pasam moo lépp lu ñu war def ci bis bi mu joxe ko loolu nag tax na mu ubbi aw yoon wane ko suñu am sutu mbàkke it keroog bi ñuy def woote bi fii am na lim bu mu tudd ci ay nag te nam ko waxee woon nii la ko defee te fasul yéene yem fa ngir nee na ginnaaw bis bi eh, loolu rek moo ko tax a jóg lu ñëw ñu def ko ci ba keroog muy àgg yaakaar naa loolu nag euh, sëñ Youssou ni mu ko tëralee am na commission boo xamante ni sàkk na ko ku tudd waañ di nga tudd ay nag di nga tudd matt di nga tudd ceeb di nga tudd ay ay jumtuwaay maanaam tey fii may wax ak nii ñaari fan ndox suñu digg bis bi euh, su ma la doon laaj ñaata waañ ngeen am euh, nu waañ ji toll ak tey ñu ko doon ma ci yenn barab la nekk. waaw salaamaaleykum sëñ Lamine jërëjëf. Mhm. waxtaan wi de moom dafa mel ne sëñ Mamor. Mhm. nee na euh, bu yëgoon lii dana toog bàyyi ñu yaatal waaye day mel ne ñun tamit bu ñu xamoon nii lay mel waxtaan wi <laughs> neexee de danañ leen bàyyi ngeen wéyale mhm. ndax li ñu waxtaan ci sëriñ bi ak dëkkam bi. am na solo lool. Mhm. kon jërëjëf sëñ Lamine ci laaj bi. commission bi nga xam ne mooy euh, restauration. dafa dugg ci biir comité de pilotage bi nga xam ne taxawal nañ ko. bi ndigal li rotee. ma feggoog sama jëwrin ju nga xam ne mooy sëñ Thierno Diouf nga xam ne moo ñu dalal ci waañ wi dalal ñu ci daara ji di mag moo xam ne ku am yitte bi ko ndigal fekkee Touba ba tey delluwut fëpp ca këram ak sëñ amaru Diallo teew fi ci euh, kàddu njabootu sëñ Amsa ndax commission bi ñoo ko seq kon ñu ngi leen di siyaar baax may wax seen tur rek di wax ne liggéey boobu euh, ay bis yoo xam ne ñu ngi ci jafe woon na lool nag ndax événement bu mel nii defe naa mi ngi soog a am waajtaay wu duñ toll mi ngi soog a am kon loolu day laaj xalaat yu bari léegi léeg nga xalaat takk ba noppi nga ñëw ñu jóbbantewaat la jooyanti la ba keroog ngay mën a am jur dara ba ñu demee nag ba taxawal loolu gis nañ ne li ñu tënk euh, bi ñu ko présenté leeral ko jàpp naa ne buñ ci sukkandikoo yàlla suñu borom mën nañu suturaal ñu am ndam ci bis bi kon ci laaj boobu rek fii bi ñu xoolee waa li mu wàññi. àgg na ci ñaar fukki waañ ak juróom-ñeent. yoo xam ne dañoo xalaat ne soo ko bëggoon dajale ci benn barab. dina jafe te ñu nekk ci contexte boo xam ne nawet la. nekk ci jamono joo xam ne tamit laajul dajaloo bari. ci loolu sababas lañ tax nekkoon ñu ne nañu jël waañ yi ñu séddale ko dëkk bi. xool fi mu gën a jegee rek ak ñi nga xam ne. am nañ mbooloo yoo xam ne organiser nañ mate nañ ko. Hmm. ñu si dafa ay waañ. kon ñu génne euh, ci lim. lu toll ci euh, huit cent trente cinq mbana. loolu nag bu koy wax ci tudd ci wolof mooy juróom-ñetti téeméer. ak fanweer ak juróom. ci limu mbana. loolu nag tey boo ko doon xayma dañ koy xayma rek ci li mu mën a yóbbu ci aw nit. ndax xay mbana gu ne soo xaymaa ne mën naa yóbbu téeméeri nit. kon loolu soo ko calculer rek dana la mën a jox ci ab lim. loo xam ne jàpp nañ ne suñ ko séexee rek loolu li sëriñ bëgg ci bernde. bëgg ko ci bis bi dana matale képp suñu kàttan waaye loolu sañu Lamine li ci gën yéeme mooy ginnaaw bi ñu takkee liggéey bi ba dem ci waañi dem sur le terrain ngir nemmeeku liggéey yooyu gis nañ ne foofi dem waajal leen ci misaal ñaar fukki mbana ñoom dañ lay wax ñun dañ def ñeent fukk ci loo xam ne seen pëstéef bopp ak seen seen yittey bopp la mhm. foofi ne fanweer ngay def mhm. dañ leen dañ def juróom benn fukk loo xam ne dañ naan lépp yemul ci wax waaye li koy def mu ngi ni yemb na kon day mel ne sëriñ bi moom wuy su nañu ci liggéey boobu mm-hmm. kon liggéey boobu ci noonu lañ ko séqee mm-hmm. ci noonu lañ ko yaatalee mm-hmm. ba yàlla suñu borom defal nañ ci résultat boobu kon day mel ne loolu moom li mooy li ñuy wéyale la ca dolleekuwaat ci liggéey mooy kon waañ yi eh, ginnaaw séddal nañ ko ci ay waañ te waañ wu ci nekk dem nañ ba ci moom waxtaan ak moom jox ko dele ndax togg dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem di fàttali ñëpp it ne mboolem ñu yor waañ yi dañoo ne ci nawet nawet moom kuy togg dangay ngay fàggandiku war ngaa fexe maanaam soo mënee am baas ci wet gi soo mënee am gaz soo mënee am jumtuwaay boo xam ne bu la taw bettee la ngay def du tardé loolu yaakaar naa ne képp kuy togg dana ko ci bàyyi xel mhm. kon loolu tamit liggéey boo xam ne waxtaan nañ ko ak ñoom xamal lañ leen ne diggante bi ndax sëriñ bi moo moo joxe waxtu mhm. nee na juróom-ñaari waxtu ba muy sept mhm. ba tàkkusaan ñu war a toog ci jotaay euh, dundal xasida yi loolu yaakaar naa ne loolu sëriñ bi moo ko tudd diggante boobu nag euh, dara waru koo dogantal moo tax ñi nga xam ne geneen fànn goo xam ne ñoom la ñuy wax sec commission bu ñuy wax collation approvisionnement en xam naa ne du ñàkk danañ ñëw beneen jotaay ngir gën a yaatal waaye ñoom it fàggu nañ ci diggante bi loo xam ne Euh, sama mbokki njaayeen ñoom sañ Amadou Ndiaye <laughs> dana leen mën a téye ci jotaay ba ba daanaka duñ mën a uti leneen lu mel ni ay xeetu beñeek lu mel ne waaw yooyu yëpp fàggoon nañ ko waaw loo xam ne daal mhm. euh, dana mën a téye euh, nit ñi diggante bi xëyee ba tisbaar di jot suñu Moussa bu ma dama xool fii ci wàññi gis naa ci fu mel ni isbu tarxiya kër Serigne Daaru Assane Ndiaye miftaaxul muna ahlu murid dongoy talbiye jaalibatu xidmatul xaddim kënzul muhtadin soxna su Mbàkke sëñ Cheikh Diba euh, waa ñu midaadi yoonu daaru ashaabul jannati nuru nurul ab nurul abraar soxna bintu jaxate tey siiru asir inna laa maana euh, kër sëñ Touba daare jàllabatu marché gaar ba Touba héliport ahlu minan kuréel mbalem Touba sëñ Daam Sorong soxna Astu Mbàkke mu sëñ Abdou Borom dër bi sëñ Abdou Lahat jaxate waa ñu sëriñ Abdou euh, Islaahu daare ni waa ñu sëñ Moustapha Sëy sëriñ Basiru Ndiim soxna Ndeytaal mbaarum daaru Xudus lii boo ko xoolee tey indi na lu tolloog daanaka juróom-ñetti téeméeri mbana ak yu ni mel tey jii ak ni barab yi yaatoo ci Touba nan ngeen doxalee ñii li ñuy togg fi muy jëm ak wàllu séddale bi ni ñu koy doxalee. jërëjëf suñu Lamine kon defe naa ginnaaw bu ñu tënkee mbooloo mi ci kenn ku ne la mu war a def. Mhm. ak eh, joxe leen waxtu. Mhm. Eh, dañ ko organiser waat ci beneen anam. Mhm. mooy bu ñu ne woon kenn ku ne na nga togg indi rek ci benn barab. yaakaar naa mën nañoo togg xéewal yu ñu toll te duñ ko mën a dënale. lañ tëralee commission boo xam ne def ko ay fiches techniques bi nga xam ne dafa jëm ci ginnaaw bu ñu toggee kuréel bu ne dañuy di mbooloo dañu lay xamal ne la yow de boo xasee bu ñu la xasee euh, séq yow ci li nga xam ne mooy lu ñuy barkeeloo ci li jëm ci togg gi euh, jàpp nañ ne li nga xam ne mooy jumtuwaay yi muy mbana yi muy palaat yu koy séddale muy paan raxasu yi loolu na nga ko fàggu ba ci waruwaay boo xam ne fa ngay toggee da koy sëf indi ko loolu juboon nañ ci ba ñoom kenn ku ne dawal na ci yéenam dana dañ dem daana dem nañ ci mbooloo moo xam ne da ngay àgg ci yéen jooju ñu génne ñaar téeméeri palaat yu yees tegal la génne téeméeri paanu raxasu tegal la mhm. ne leen ngir rek ndigal lii ñu matale ko mhm. ndax dañ ne ki ko amul ñaar téeméeri palaat jàpp nañ doo mën a séddale mhm. ndax ku ci togg it mbooloo mu ci togg lim bi nga lim ci ay mbooloo mbooloo mu ci ne li mu mbooloo ñoo ne ci gannaawam mbooloo mu nekkit préparé na ba nga xam ne su noppee liggéey boobu moo koy séddale boppam dajale ay palaasam ay ay bagaasam ci laaj bi. Euh, dañ koo tënk ci ay barab ndax sëriñ bi moo tudd jumaa ji ak li ko wër. tudd daaru minam ba ci daaru xuddoos. fenn fu ci ne am na lim bu ñu faa ci ay mbana. ñu jàpp ne la fa nar a ci mbooloo. xëy na suñ fa tegee nangam mbana de dana leen mën a yóbbu. ci misaal rek ñu ne jumaa ji euh, dañ ne ñaar téeméer mbana de suñ ko dugalee ci jumaa ji jàpp nañ ne dana mën a yóbbu lu bëri ci mbooloo mi kon liggéey boobu euh, isbu tarixee la muy togg kër sëñ Daara Assane Ndiaye la ñuy togg ahlul euh, ahlul murit la ñuy togg sëñ naa Fall di ndongoy tarbiye sañ da sa Amsa la ñuy togg euh, daa ak tey siru asir la togg loolu soo ko boolee mooy ñëw ci jumaa ji nga xam ne ñoom bu ñu paree rek sa saasir seen ndab ak seen mbana ci jumaa ji lay ñëw bu ñu nee kër sëñ Tubaa gi ñu ne ahlul xidma ci njiital sëñ Babkan ci daaru daaru xuddoos euh, daaru minam ñu ne Kanzul Moxtadin ca gaaras daaru ci njëtal sëñ Mbàkke Njaay ñoom la ñuy togg su noppee dañuy indi directement kër sëñ Tubaa ñu ne kër euh, kër sëñ Abdu Laat mbooloo ma fa war a ne euh, quartier bëgg Bàmba nooru daaren ni ci njëtal sëñ Seex Diba ak euh, kuréelu Midaadi ci bokk ci sañ am Amsa ak kuréelu yoonu daaru ñoom it suñu noppee seenub liggéey foofu lañ koy yóbbu kër sëñ Fàllu ñu ne kon asaabul jannati ci njiital Modou Fall sàmb ak sëñ naa fal ñoom it buñ pareel fañ togg fuñ koy yóbbu. nga xam ne daal kon jumaa ji ak li ko wër. jumaa ji ak li ko wër fenn fu ñu nekk moom la ñuy togg ñoom. xam nañ ne barab sàngam lañ koy yóbbu. loolu leer na ci mbooleem waañ yi war a togg. Mhm. tey yu ku mel ne kër sëñ Abdoulahi borom dër bi. Mhm. Euh, sëriñ bi ba ñu ñëwee ak njabootam la jël ànd ak ñun. Mhm. ñu bokk liggéey bi. foofa ci biir kër ga sos nañ fa waañ. ci ndigalu sëriñ bi beneen daayira bu ñuy wax islaahu daare ni mhm. ñoom seenub liggéey su paree ci kër gu googu a jëm léegi nag ñu gis ne am na bokki taalibe yu bari yoo xam ne seen yéene mooy man de ndigal lii dinaa dinaa sant sama waa kër ñu togg ci sama biir kër ñeenti mbana am ñu ne man kat dinaa indi nangami bool am ñoo xamante ni dinañu indi eh, yeneen yoo xamante ni yu ñuy barkeeloo loolu tey su ñëwee yéen nan ngeen waajalee eh, dékku ko ngir mën koo séddalewaat waaw jërëjëf sëñ Lamine ci laaj bi defe naa bu am solo la ndax euh, sëriñ bi waxtu wu ne daan digle digle njàngum alxuraan ci jumaa ji ah. loolu ñu daan gis ñu ko murid yi yëg yëg ak ni ñu ko daan doxalee mm-hmm. euh, daana digle déggal waa ispitarax yi ñu togg ay mbana mm-hmm. ñu koy sédd daan ko séddale ci soow bi mm-hmm. waaye lu bokk toog loolu euh, kenn ku nekk day yëg ne sëriñ moom day digle te waxtu wu ne bu diglee diglee dañuy xam ne berne dajaa bokk ñu togg kenn ku ne toggee sa kër ñi mbana ñi togg mbana ñi togg ay bool ñu yenu ko indi ko jébbal ko waa liggéey bi loolu nag ngir ba tey jëfe ndigalu sëriñ bi ci durus bi nga xam ne waruñ dara waruñ tax dara warul tax mu dogantal tey nit warul toggee am ñamam rek fële indi ko xool fu mu gën a jege mu tàmbalee séddale boppam loolu dañ koy tënk ndax ci misaal dañ ne euh, fu ñu jullee tisbaar ba noppi balaa ñu delluwaat ci durus bi mbooleem waañ yëpp war naa fekk ñu ñu lal teg tibb seeni palaat ba bu ñu sëlmalee rek ñoom ñu tàmbalee séddale bi loolu dañoo bëgg tey mu doon liggéey bu ñu coordonné waxtu woowu tey boo demee ci biir jumaa ji war ngaa fekk ña añ boo demee ci ci ci barabu jullikaay ba nga xam ne mooy bu naafi daayira jàngkat yi fa lañ nekk war ngaa fekk ñuy añ soo demee ba guy mbind war ngaa fekk ñuy añ boo demee ahlu minam ca daaru euh, xuddoos da fekk ñuy añ boo demee daaru euh, daaru xuddoos ci wilaaya war ngaa fekk ñuy añ kon loolu liggéey buñ coordonné la mhm. tey kenn ku nekk yëg na ne waxtu woowu lañ ko bëggee mhm. loolu disposition ñu ci jël te war koo mat a leeral mat koo soññee mhm. mooy kenn ku nekk waañ ba nga yor ak mbooloo mi na nga ci bàyyi xel set gi mooy ay mouchoir à jeter ah. lu mel ne ay napp ci barab yu ko mat lu mel ne panneau raxasu yu doy lu mel ne kotol ak omo loolu buñ ko fàtte benn yoon li nga xam ne mooy sëñ sëñ Lamine li mu doon laaj léegi dañoo créer lu ñuy wax ay campus campus mooy barab yoo xam ne su ñam ñëwee kenn am keneen am yéeneem def ko ci bis bi mm-hmm. su ñëwee walis muy xool fu ko neex mu teg ko fa waaye dañ koy yóbbu ci li ñu wax campus mm-hmm. kër sañ tubaa gi ci wet gii nga xam ne mooy wetu palais Djily Mbaye mm-hmm. am na fa campus bu ñu teg kër sëñ Tuubaa gi ci wet gee nga xam ne dafa féete kër sëñ Abdou Lahat fi Baye Fall yóbbu seen ndogu foofu teg nañ fa ab campus ak ci kanam kër soxna Kunta mu sëñ Fallou képp ku jógee gaar ba jógee guy mbind yori teraangaam su ñëwee am na campus foofa campus bu ci nekk danañ ko def liste boo xam ne moo fay nekk ñu administré ko recensé ko ñu xam ne ndab lii kat diw la fi indi ku fi indi ndabit danañ jël ay matuwaay yoo xam ne dañ fa teg ay suñu ndaw bopp yoo xam ne lu fa waaye indi rek danañ ko sotti mën koo teral mm-hmm. raxas ko delloo la ndab li ndax yéen a ji ci amoon kon loolu tamit disposition la boo xam ne mm-hmm. jël nañ ko mm-hmm. bëgg ñi nga xam ne dañu togg ci bis bi ngir indi bu ñëwee ñu teg ci ay loxo fenn fu ci nekk dañ fa am kuréel bi fa teg boo xam ne kuréel bu efficace la ci wàllu séddale ndax ndab yi lu mu bëri rek waras na ak mën a gaawal séddale bi ba nga xam ne fu mu war a dem ci liggéey boobu mu dem fa waaw loolu nag euh, yaakaar naa lu am solo la yaakaar naa di nga dalal xelu sax ñu bari ñi nga xamante ni ndeysaan dañuy am yéene bëgg a jëf ci bi bëgg togg du ñu xam fu ñu ko yóbbu ilaa ñu am seen yéene bu ñu ko yóbboo euh, xëy na euh, mën a ñàkk jot ci bool yi ak wàllu cer gi xam naa loolu dinaa ci ñëwaat sax ci ñaareelu fànn bi ndaxte tudd nga jumaa ji kon gis na waa Muxaddamatul Xidma niñ koy taxawoo ndax yow yàgg nañ fa jàng alxuraan waaye gis nañ ne biir jumaa ji ak barab jullikaay bi ku ne gis nañ ni du barabu xéewlukaay kon am na barab yoo xamante ne waajal nañ ko fa foofu itam di ay karo nga xam ne kon warul niin warul taq loolu lépp kon dina indi sax équipe bi nga xamante ni amaana des na leen tudd bu ñuy àggal muy ñu jëm ci wàllu hygiène ndax xam nga ne lu mel noonu raxasu mi rek ñi koy taxaw kuréel la ñuy doon ñi lalli yëf yi kuréel la ñuy doon kon mu mel ni sëñ bi bëgg na lépp ñu def ko ni ñu ko war a defee waaye incha allah lépp dana dana dana dana dana nosu xam naa dinaa ci ñëwaat su may ñëwaat ak ñoom euh, sëñ Pape ci wàllu durus bi ak matuwaay yi nga xamante ni jël nañ ko euh, kon sëñ Cheikh Gueye moom la ñuy dellu rek ziyaare waat ko bu baax a baax a baax incha allah bëgg mu euh, yëkkatiwaatal ñu genn xasida koo xamante ni incha allah dañ koy barkeeloo ma soog a ñëw nag ci wër bu mujj bi ak sëñ Mamour am ni xam naa bu mu ñëwaatee ci moom dañuy ñëw nag ci moom xasida Matlabul Fawzayni ki nga xam ne moom ku tudd dëkk bi tudd ko lu ci jàpp ni rek incha ci ay yaatal ñu def ko ci sëñ Cheikh euh, kon ñu ngi koy ziyaare bu baax di ko ndokkeel wax dëgg yàlla te am mbégte lool ci teewaayam ci ci ci ci jataay bi bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim li ma yastahoona bika li yanqaada